mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi combat bi dox ci Petit l'Enfant ak Hercule Hercule mbokk yi moo féete à gauche Petit l'Enfant moo féete à droite Hercule moo ngemb ngemb kerale bi Petit l'enfant moo ngi moo ngi lu ñuul li Hercule teg na pied gauche Petit l'enfant teg pied droite ñoo ngi xoolante ci biir bët Hercule Petit l'enfant Hercule ngi dox ci kawam Hercule Petit l'enfant ñoo ngay leewaatoo Hercule Petit l'enfant ñoo ngi xoolante ci biir bët cong amagul dooranteegunu jàppanteegunu tey Fallou Ndiaye Hercule Petit l'Enfant Hercule bëgg na léegi waaye demul Habib waat na leen ci diggi géew bi Habib daa ngi wax ak ñoom nee na leen bëri leen li waatoo bi andiwu leen fi Hercule Petit l'Enfant est-ce que yéen a ngi may dégg nee na ko waaw <laughs> arbitre bi la waat na petit l'enfant ngay xool e door na moom petit l'enfant petit l'enfant Hercule petit l'enfant Hercule la xeex du dëgg moom Hercule petit l'enfant l'enfant waaye kii mag la kii doonatul xale ekil ekil mépp kawam maam door na ko ekil petit la ñoo ngay ekil door na petit l'enfant ekil door na ko door na ko door na ekil door na ko mu kaawoo Hercule door na ko mu kawo Hercule daan na ko da koo door Petit l'enfant coup ba mu jël baaxul Petit l'enfant Hercule